cadre yi nga waxoon moo ko bind léegi anamu yan 4000 cadre la man ba mu ko waxee nee naa passif amul 4000 cadre am na mën na am 4000 euh, kilifa yoo xam ne dañuy wax lu dëgg waaye 4000 cadre mënu faa am mu forcé ñu ko ñun ñu nit ñi forcé ko jël ko ba mu egsi fii yaa xayti mu laa nag Ousmane nañu dimbali nag bii yoon moom il est temps mu leeral ñu livre solution bii mu gàdd woon ñoom seenu ëppal sax àggoon na ci dem ba ne livre bi du pour Sénégal pour Afrique la si nu exagéré mu àggoon na ba ne livre bi moo war a développer Afrique. mais c'est ça en fait loolu lu bokk na ci parce que itam ci ak yi ci ci axe yow da euh, ngaa gisati ci axe référentiel bi ci axe yi mu koy wax wax na ci non foog ñu wax ci référentiel bi parce que si loolu la ñu nekk bu ma foog ñu tudd ko xam nga yow fu ñu nii da sama xol bi xam nga kilifa muskaalaf Ousmane Sonko cinquante ans la am muskaalaf la muskaalaf la warul wax waxi neen te nag solution bee mu ñu forcé woon ay neen la nañ xam waxante dëgg ndax ba mu egsee au pouvoir dañ ko mujjee gis parce que man Ousmane ba ba ma xamee ne solution ñëwul mooy ba ñuy do nommé nommé gouvernement bi ñu ne dafa tardé ñetti fan mënuñoo nommé ministres yi am benn journaliste bu ëppal naan non euh, enquête de moralité tax ma ne ko bu mu jëm kaw bu ñu defee enquête de moralité Ousmane Sonko du falo na leer ñi xam moral laay wax nag ma ne ko kon enquête de moralité téyewul dossier bi xëccoo poste la dossier jéem a génn ñu ne ñiñ fal kenn xamu leen nangam man leen war kenn xamu leen d'accord poste directeur yee ñëw ak ministériel deux cent nangam yow parité bi nga fekk fii ñu vote ko fi sax danga nga kaa jalgati appel à candidature bi nga fekkoon ñu fal ci ay nit ku ci mel ne ñoom Basir Fafana ak directeur ALCOP bii da nga leen a dàq indi ñeneen c'est-à-dire yow ngay jalgati après yow nga bëgg ñëw indil lii wax ju dàq ja woon ca projet bi mu nekkul fii lii projet bi dafa wax ji neex ji fi newoon. wax ju fiix ji fa newoon ngañ dem ba demoon na ba nañu ñun Sénégal kenn warutu fee ñoom bu ñu egsee kenn dootu fi génn dem bitim réew di faju ji kenn dootu fi am doom di faatu parce que nee na lépp a ngi fi te ñoom programme bi ñu yor day développé lépp waaye eh, alaaji na moo tax man la lii bu ci waxati <laughs> déedéet parce que lii wax ci heure bi dafa xaraam liñ ci war a wax mooy maanaam mbir mee lee nañ ñëw mu leer bu pare parce que moo rey xale yi lee moo rey xale yi projet bi la xale yi doon protéger ñàkk ci seen bakkan léegi loolu moom bala ñoo buuse sénégalais yëpp ñoo waroon def pétition nekk Ousmane d'accord indi nga lii d'accord dinañ ci wax mais faw lay leer la ma ko waxoon ba nga nomee ñoom laa ak ñoom mari taw ci nga waroon ñëw jàkkaarloog ñun ni ñu ñii ay sàcc la ñu wala la bàyyi nañ sàcc wala ñii musuñoo sàcc man maa doon wax dëgg nga leeral ñu ñu doog a avancé président Macky Sall bi mu ñëwee indi yoonu yokkute bi mu xoolee yoon yokkute adopté wut ak ni réew mi doxee mais am na grandeur taxaw ne damay defar PSE parce que lii àndut ak ni euh, adopté wul ak réew mi fal beneen ministre des finance dem tëgg PSE kii nag bi mu ñëwee ba tey joxuñu benn explication vendredi la mercredi woo nañu fi grand théâtre ngeen dem mu indi ay sabarkat démb ay théâtrekat la génnee teg leen ñu def mise en bu njëkk bi moom mooy moom mooy acteur bu mag bi ma xur a jegey moom mu continuer théâtre bi après forcé ko nit ñi quoi maa ngi dégg Lamine Lamine Diack sax. Euh, ñooñu dañuy bay ñëw da cee def da cee def soog dama lay dagg ñooñu dañuy ah. sensibiliser ñooñu loolu moom mooy seen. Ah, liggéey d'accord d'accord nangu naa nangu naa kii la ñuy def. bàyyi ma ñëw rek maa ngi ciy masawu Lamine Diack bi mu fa jugee. la la otoom këpp. maa ngi koy ñaanal jàmm waaye mag du dem ci caaxaan te li caaxaan la woon. yàlla na ko yàlla fëgg boppam nag mu wér Fatima daal pour mu leer. maanaam sujet bi man ma doon ñaan nit ñi dama naan leen moom seen lii moom bu ci kenn wax nañ wax ci lële kay léeg rey doomu jàmbur yi moom bala ñoo buuse nañ ko lijjante ba pare. projet voilà bala ñoo buuse di wax ci lii man de ma sañoon sénégalais yépp dañuy ignorer lii teg ko fii xam nga lan la na ku ne dem jëndi livre bi nag gaaw wala àddi ko am na ñu ko am ñu ñëw imposer leen ko far force la ci ne ci biir ñu def ko lii soxlawuñ ko la ci livre baa bu dee lii dañ cee fay 2 milliards lañ wax ci livre ba moo dàq lii fii fuuf. parce que nag dama cee xam lu bari moo ko gën a neex fuuf. dama koo liir lu <laughs> li ma la wax yëpp ca la ne. mais Alaaji Lamine. président président taxawal mais l'homme qu'il faut à la place il faut. loolu baaxul ci réew. baax na ci réew yow defe nga ne bu ñu defoon appel à la candidature dinañ fal kilifa ak nit dof Ousmane nee naa poste premier ministre sax bu ñu ko defee appel à la candidature Ousmane Sonko du jàll. ñoo la ko gën a xam tay taylu disparaître livre bi parce que xam nañ li fi nekk yëpp ñoom buñ ko defee ñoom duñ dem. du compétence bi du xam-xam bi président de la république bi ñu fal sax bu doon appel à moom du jàll ñoo la ko gën a xam léegi ñëw di ñu jéem a dóoraat ci yeneen ay ay 4000 cadres bind ñaata 20 pass 4000 cadres xanaa bu kenn bindee benn moo ëpp na 20 pass 4000 cadres ndekete 4000 cadres yëpp famille Ndiaye la. Albouri la ñoom ak ñoom ñoom ñoom njaay Sénégal nag bu na jaar Ndiaye dara boobu. <laughs> Ndiaye di bi devenu léegi Ndiaye. baax na baax na yaa ngi too yaa ngi too Ndiaye di baax na euh, mu ngi noonu merci beaucoup euh, Abdou ci li nga xamante ne ne euh, moom.